waaw leneen la moom leneen la loolu. Eh, hmm. loolu sëñ sëñ dégg na xel. Hmm. xamal ba jaaxle. Hmm. mooy aadama ba ba waraloon suñu jot ba ca booba. waaw ba muy njëbbal si moom la àndal. waaw seex yu ne mbiram loolu leneen la. <laughs> dama laa bëgg wax benn affaire. waaw. léegi nag lan la njëkk a defal Sëriñ Tuubaa ba tudd Baabul Muriid yi ñooñu ñëpp jébbalu jox nañ seen bopp Sëriñ Tuubaa waaye ak taalibe bi xamuñu nu koy defee. waaw buñ defee ne dañoo yaafus de. waaw ñooñu ay ponkal la mu de. waaw. yaafusunu mm-hmm. waaye ni nu war a topp Sëñ Tuubaa dis ko mënta jàng fenn ndax binduñu ko mm-hmm. yàllaay waajal ko koy wane mm-hmm. jaar ko ci moom mu wane ko kooka nag mooy bul doon buntub loola ku koy defar ci moom nga koy jaar Seex Ibra moom ku nanguwul ne mooy baabul murid diina doo doonu murid yow ñëpp biñ jëbbale seen bopp Sëñ Tuubaa dañoo téye seeni sant ku sin bi woo nga seet noo wuyoo Seex Ibra indi ci yoon wi bàyyiwu sant santam bàyyi sant baayam di wuyoo sant sëriñ bi euh, Ibra Fall mu ni Mbàkke ku ko waxaat Seex Ibra ko reyee dafa fii may waxee ñun murid yëpp koo ci woo dañ wuyoo turu sant Mbàkke Jenn Faal Njaay waaw Saar ñu xam ne waa ko sin may Saar nga waa ko dama ni liggéey jox sëriñ bi te yow di fande doo lekk hmm. Seex Ibra ko sëriñ bi ah. waaw dama lay wax yi mu njëkk a defal sëriñ bi te doyu ko kenn mhm. te ku ko deful fi mu toll doo amuk taalibe eh, eh. te ku ko defaat ci moom roye ko ci moom ngir amuk taalibe war ngaa xam ni mooy baabul muridiin eh, ah, lu ma la waxoon ca boo bakkar yi njëkk njëkk jikko woo jikkoy lislaam boo ko def baabul tariq mhm. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam max nan wa majaasan lu ko def loolu baabul hudaa baabi baabi baabillahi lii indi baabul muridiin yaa ngi dégg dama ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo fi indi teg sëriñ bi ci kaw ci toog ci suuf mhm. waaw Cheikh Ibrahima berkeesu bi waaw keesu sëriñ bi nee keesu soxna ya nee keesu donga ya nee kër sëriñ boo dem léegi gis ko koy weddi kat te boo demee kër gis mu beru keesam waaw looy ah, xam ne day wër sikk sàkk mbirum Cheikh Ibrahima te boo toogee ci kaw bëgg say taalibe toogal la ci suuf looy weddee Cheikh Ibrahima ba noppi utilisé nga ko ku ne bëgg nga sa taalibe boo ko yónnee mu daw te gaaw ci mm. bëgg la lool sopp la ba nga gënal ko sa waaw nooy weddee Cheikh Ibrahima te loolu moo ko feeñ ku mës a jur sa doom da koy yàq hmm. bu jàng jotee nga jàngal ko hmm. bu amee njariñ nga bokk ko njariñ li ngeen njariñoo hmm. waaye jur sa doom ne moom ma ko Sëñ Tuubaa ko moom Cheikh Ibrahima ko jur joxe waa déedéet maam Cheikh Ibrahima moom mooy yoon wi lii man maa la ko wax yaa ngi dégg nii nuy toppi Sëriñ Tuubaa bëgg ko mu gën a nu am jox ko duñ ko bëggal dara duñ ko bëgg a doon duñ ko bëgg a doon xam ni sunu njëriñ tey ëllëg moo ko yor mm-hmm. Cheikh Ibrahima fi indi Cheikh Ibrahima bi mu dikkee dañ doon si bi Moodu Mbàkke lañ daan wax moo fi indi Sëñ Bàmba ku tedd ki yi ngay dégg yëpp Cheikh Ibrahima euh, babul